I have been deeply worried about how to get a facility like this within this community. man jaaxle woon naa lool naka lay indee lu nu mel ci gox gi lii suma papa moo nekkoon alkaali dëkk bi gannaaw bi nga xam ne dëkk bi ñu ko sosoon di ay maamati maamam moom sama papa nag moo doon faral di yóbbu jigéen yi nga xam ne nag ñu ngi matu foofu ca kawru ba mu jéegi sax dañ ko dee ooyee alkaalo ambulance bokk na ci yi ma wax bu mu tëddee woon ci lal feebaram wax na ma naa fexe pour ubbi li nga xam ne nag moom moo di bunti wér gu yaram ci tund wele li nag jox na ma jawarte lool pour ma ubbi li nga xam ne nag moom moo di buntu wér gu yaram fii ah, pour jàppale nit ñi xam nag ñoom ñoo dëkkee ci gox gi léegi lii nag mébéti sama papa la woon waaye nag sant yàlla bi nga xam ne nag tey déggal nañ ko mooy amal li nga xam nag moom moo di buntu wér yaram fii ci tund wele pour jàppale nit ñi nga xam ne nag ñoom ñoo dëkkee ci tund wele was to get actualize his